سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot ci suñu jataayu xam-xam yi ñuy ànd ak yéen di ci fàttalanteendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci jataay yi la ñuy dellu siwaat ak yéen rek ñu doon ànd ci ak yéen ci suñu bind yi mujj ci téerab sëriñ bi radiallahu bi nga xam ne moom la tudde jazbatu sigaari an laibin li xidmatil muxtaari muy téere bu ama am solo ñu ngi ci doon ànd ak yéen ba suñu bind bi ñu mujj ànd ak yéen ñu ngi taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon wax ne walam يكن ثان له في ذاته ولا له مشابه صفاته ولا له في فعله شريك سبحان من زلت له الملوك sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne suñu borom bi subhanahu wa taala day am ñaareel ñeew ñeelu ko ci jëmmam waaye dara nuru ko ci ay melo melokaan yi mu yore eh, kenn nuróolew ko ak moom waaye jëmmam ji itam jenn jëmm nuru ko te ay jëfam kenn du ko ci bokkaale man na boppam ba lépp loo xam ne moomu la bëgg namm ko da koy def na nga xam ne noonu la ko bëggee mooy ki nga xam ne tudd naa ak sellam waaye it mooy ki nga xam ne buur yëpp moom la ñuy ñi nga xam ne ñoom la ñuy ay buur ñëpp moom la ñuy moom suñu borom bi subhanahu wa taala ngir kàttanam akum màggam waaye ngir man gu man boppam ak ñàkk gu mu ñàkk nuroo ak lenn loo xam ne euh, bind na ko kon ci bayit boobu la ñu taxawoon sëriñ bi radiyallahu anhu di di wax rek ba tey ne wa annahu ak naka moom tax mu dana war xudratun kàttan lahu ñeel ko summa iradatun topp ak nammeel wa ilmun aku xam jàlla màgg na huwa moom suñu borom bi subhanahu wa taala summa xayaatun topp dund summa samoon topp ak dégg bosor ak gis summa kalaamun topp ay wax zii yi yëpp ay maanaa la duraruñ yu gànjaru nee na suñu borom subhanahu wa taala kon dañuy dégg ci loolu na dana war ci moom euh, kattan dana war mu nekk ku am kattan ndax li nga xam ne moom la def ku amut kattan mënu ko euh, bind asamaan ak suuf bind nit ak ginne bind sawara ak aljana ak yeneen yi nga xam ne moom la bind yëpp ci kattanam la ko bindee waaye ci ak nammeelam la ko defee itam waaye itam ci xam-xamam la ko defee kon ñett yooyu bu fekkoon ne dajewut ci suñu borom bi subhanahu wa taala li nga xam ne moom la euh, def lépp du mën a sotti waaye du mën a antu kon ci kattanam moom suñu borom bi subhanahu wa taala ak ci ak nammeelam ak ci xam-xamam moom suñu borom bi subhanahu wa taala ci la defee li nga xam ne moom la def lépp kon euh, dana war ci moom mun euh, kattan dana war ci moom itam ak nammeel dana war ci moom itam euh, li nga xam ne moo di xam-xam euh, ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ni innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kon foofu liñu fi fiy dégge mooy euh, ak nammeelam ci lay def lu mu bëgg a def ak nammeelam mu di ak bëggam ci lay def lu mu bëgg a def waaye ci xam-xamam ak kattanam ci la koy teg mu nekk itam koo xam ne euh, alxayaat li ñuy wax dund dafa war ci suñu borom bi subhanahu wa taala ndax bu fekkoon ne suñu borom bi subhanahu wa taala dundut itam li nga xam ne moom la bëgg a suttal yëpp du ko mën a suttal ndax ku dundut euh, doo mën a euh, taxawal dara waaye doo am kattanu def dara kon da ngay lott ci Euh, def sag nammeel waaye da ngay lottu itam ci kattan gi nga war a amee ba lépp loo xam ne bëgg nga ko euh, jëmmal nga jëmmal ko itam dana xaw a jafe lool euh, dégg itam ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne innahu huwa samiul basir moom suñu borom subhanahu wa taala day dégg day gis kon dégg ak gis itam lu war la ci suñu borom subhanahu wa taala niki noonu itam wax wax itam lu war la ci suñu borom bi subhanahu wa taala ndax moom mo wax sayyidina Musa alayhi salaam wa kallama allahu Musa taklima yàlla wax na ak sayyidina Musa ay wax kon loolu liñ ciy déggee mooy ne euh, moom suñu borom bi subhanahu wa taala itam euh, dafa war ci moom wax mu doon ku mën a wax wa kawnuhu akum nekkam alxaadira di aji am kattan maanaam nekku suñu borom subhanahu wa taala di am kattan loolu dafa dafa war daa war suñu borom subhanahu wa taala mu nekk ko xam ne ku am kattan lay doon ndax lu mu bëgg a def man koo def ci kattanam waaye def ko ci coobareem te du aajowoo ndimmal waaye du aajowoo ak jàppale wal murida aku nammeel muy aji namm maanaam namma def dara def ko loolu itam lu uh, war la ci suñu borom bi subhanahu wa taala wal alima di aji am xam-xam maanaam kon kon bu fekkee ne nañ euh, kattan dafa war ci suñu borom euh, ak nammeel dafa war ci suñu borom subhanahu wa taala xam-xam dafa war suñu borom subhanahu wa taala kon muy nekk mu nekk aji am kattan nekk aji nam namma def dara def ko ak nekk aji am xam-xam yooyu itam yu war ci suñu borom subhanahu wa taala niki noonu itam dafa woor ci suñu borom subhanahu wa taala muy nekk aji dund mu nekk aji dund ndax moom moo wax ne allahu laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum suñu borom subhanahu wa taala aji dund la comme dund dafa woor ci moom comme dund dafa war suñu borom subhanahu wa taala kon itam euh, dafa war a euh, nekk aji dund moom suñu borom subhanahu wa taala walan yabida te euh, du alku loolu daf koy daanele bayit yi wa kawnuhu akum nekkam moom suñu borom subhanahu wa taala asamia di aji dégg maanaam lépp loo xam ne euh, mooy xew rek moom suñu borom subhanahu wa taala mu déggee ko nanga xam ne noonu lay xewe déggug suñu borom subhanahu wa taala nag dafa wóote ak déggu mbindeef ndax déggug suñu borom subhanahu taala mooy dégg gi nga xam ne euh, ak déggam lépp lay déggandoo ci euh, waxtu wa nga xam ne ca lay xewe wuuteeg bu fekkoon ne tey jii déggug doomu aadama la déggug doomu aadama tey li nga xam ne moo ko jege te sës ko rek moom la mën a dégg euh, te it bu fekkee ne yàlla dafa dogal sëb euh, dégg naqari euh, man ngaa bañ a dégg sax la jege waaye suñu borom subhanahu wa taala ab déggam moom amut ab limite amut daytal ndax dafa war ci jëmmam ji mu nekk as-sami' di aji dégg waaye itam mu nekk al-basir di aji gis lépp li nga xam ne moom mooy xew. waaye lépp li nga xam ne moom mooy gaar itam mu koy gisandoo ci anam ga nga xam ne ca lay xewe ak ci anam ga nga xam ne ca lay amee kon loolu euh, suñu borom subhanahu temps la rek moom moo ko man ndax moom moo am kattan bu tol noonu waaye itam moo am xam-xam bu tol noonu waaye itam moo am nammeel bu tol noonu kon kenn ku suñu borom subhanahu wa la mënoo gisandoo lépp ca euh, jamono jami xewe waaye mënoo xamandoo lépp itam ci jamono ja xewe waaye mënoo déggandoo yi lépp itam ci jamono ja nga xam ne ca lay xewe wal mutakallima muy aji e, wax itam muy aji wax rogertum yal nañ leen e, wërsëgale nuuran ak leer bokk na ci e, melokaan yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala wa amee na ko te mu doon lu yàlla ci jëmmam bi mooy mu nekk aji wax koo xam ne Eh, tey su fekkoon ne suñu borom subhanahu wa taala dafa lu ci eh, misaal maanaam dafa tëlee ak wax ci misaal loolu ak manque lay eh, tekki ci suñu borom subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa dafa mat ci fànn yëpp ba tax na kon lenn loo xam ne day wone ak matadi wala lenn loo xam ne day wone ak manque loolu day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa kon yooyu yëpp ay melokaan la yoo xam ne dafa war suñu borom subhanahu wa mu melowoo ko ndax ci melokaan yooyu benn boo ci xam ne day manqué dafa manqué ci suñu borom subhanahu wa taala rek day tekki ne euh, suñu borom subhanahu wa taala matul te loolu euh, lu jomb la ci suñu borom bi subhanahu tan taala moo tax mu ne wa annahu ak naka moom suñu borom subhanahu wa taala ali ya sax tasaxilu dana jomb alayhi ci moom suñu borom subhanahu wa taala addaadu zisifaati safaani melo yi kaan yi nga xam ne moom la tudd laata tamilu bu leen jeng nee na kon suñu borom subhanahu wa taala melokaan yooyu nga xam ne moo war ci moom ba ñu wax ko te tudd ko te muy melokaan yoo xam ne mi ngi ci suñu borom subhanahu wa taala bépp melokaan boo xam ne dafa safaanoo ak e, melokaan yooyu rek day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala waaye day jomb mu nekk aw melo woo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo koy meloo ay li mu ci jublu aadamun mooy ak ñàkk suñu borom subhanahu wa taala Euh, dafa jomb ci moom ak ñàkk maanaam su fekkoon ne suñu borom amut bu boobaa li nga xam ne moom la bëgg amal wala li mu amal du ko mën a amal kon ak ñàkk day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala comme aji euh, comme aji am la ba pare kon ak ñàkk moom day jomb ci jëmmam ji euh, moom suñu borom subhanahu wa taala summa topp ak sosu ak sosu waxoon nañ ne suñu borom subhanahu wa taala amul fenn fu mu dale comme amul fu mu dare nag moom suñu borom subhanahu wa taala kon mënee surtout wax ne euh, fii la tàmbalee euh, bu boobaa kon ak sosu moom day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala waaye day jomb bokk ci euh, jikko yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala jikko wa fanaa aku jeex jeex itam day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala moom ku fi des la du fi mos a comme du fi mos a jóge nag euh, moom suñu borom subhanahu wa taala euh, kon jeex day doon loo xam ne euh, lu jomb la ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala moo tax muy wax moom suñu borom subhanahu wa taala ne kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal nee na lépp dana jeex ba mu des jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala kon bu lépp jeexee jëmmam ji rek moom moo fi des moom suñu borom bi subhanahu wa taala tamasulun ak nuroo maanaam nuroo oh, suñu borom nuroo ak dara loolu itam dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa ndax waxoon nañ ci melokaan yi nga xam ne moom la war a melowoo mooy wuute gi nga xam ne moom la war a wuute ak li nga xam ne mooy mbindee mbindeefam kon day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala muy nuroo ak mbindeefam yi wala muy nuroo ak dara ndax eh, dafa wuute ak mbindee yi ci lépp kon wërta nuroo ak ñoom ci dara summa ftixaarun summa ftixaaruhu topp ak euh, aajewoo kana ni ki bokk na ci li nga xam ne day jomb melokaan yi nga xam ne day jomb ci jëm suñu borom subhanahu wa taala ba tey mooy ak aajewoo jëm ci euh, dara euh, maanaam ak aajewoo yittewoo ku ko dimbali wala ku ko defal dara loolu itam day jomb ci suñu jëmmi suñu borom subhanahu wa taala comme aajewoo nit ku ko dimbal ci dara loolu jomb na ci jëmmi suñu borom subhanahu suñu borom dafa doyloo boppam e, ba e, amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon amul ci kenn soxla soo xam ne moom nga koy dimbale wala moom nga koy fajal e, ñi ki ñun ñi nga xam nga xam ne ñun ñoori ay mbindeef ñii soxlawoo ku ñu dimbali ak ku ñu jàppale ci yenn mbir yi moom suñu borom subhanahu wa taala loolu dafa jomb ci jëmmam ndax xaaimun bi nafsihi aji taxaw la ci boppam la aji man boppam la euh, kon soxla woowut kenn koo xam ne moo koy dimbali wala moo koy jàppale temps du niki noonu itam ak limu mooy ñaari yàlla wala ñett ndax su fekkoon ne ñaari yàlla wala ñett dafa am su boobaa itam loolu mën naa jur jafe-jafe ndax ni muy juree jafe-jafe mooy lan mooy moom suñu borom bi subhanahu wa taala su fekkoon ne ñaari yàlla dafa am euh, yàlla ji mën naa bëgg euh, taw masalan yàlla ji bëgg a taw yàlla ji bëgg mu tàng masalan yàlla ji bëgg mu sedd bu boobaa jafe-jafe day am moo tax moom suñu borom wax ne euh, law kaana fihima alihatun illa la fasadata su fekkoon ne jamono ji ñaari yàlla yàlla budul yàlla mi nga xam ne mooy kenn daf fee nekk bu boobaa euh, jamono ji day daal di yàqu waaye jamono ji du mën a jàkk du mën a baax moo tax itam mu wax qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom suñu borom subhanahu wa kenn la waaye euh, jurut kenn kenn juru ko euh, te it amul way jur amul lenn loo xam ne moom lañ koy dendaleel kon moom kenn la moom kott la Euh, amul denn amul ñaar amul ñett ndax su fekkoon ne am na ñaar wala ñett wu boobaa loolu day jur ay jafe-jafe yu baree bari comme suñu borom subhanahu wa taala kenn la na nag ak limu day jomb ci jëmmam ak limu muy ñaar ñuy wax ñaari yàlla wala ñetti yàlla loolu day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne taaddudun ak limu bokk na ci melokaan yi nga xam ne dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ajjun niki noonu ak lot lotu ci def dara maanaam lotu ci bëgg def dara daal ci lotu ngir mën koo def loolu itam lu jomblo ci jëmmi suñu borom subhanahu wa la ndax waxoon nañ ci kaw ne euh, xudratun aji am kattan la kom aji am kattan la nag day jomb ci jëmmam ji mu nekk koo xam ne day lotu ci bëgg def dara ngir mën koo def comme kon lépp loo xam ne bëgg na koo def rek euh, am na kàttanu man koo def te it mën na koo def ca anam ga nga xam ne noonu la ko bëggee te du ca masa lot karaxatu niki noonu ak sibeel sibeel mooy lan mooy ñu euh, koy forcer ci dara bëgg bëgguta def nangam ñu forcer ko ne dangay da def nangam kon lépp loo xam ne moom la def ci ak nammeelam la ko defee ci coobareem la ko defee ci ak bëggam la ko defee waaye day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ñu koy forcer ci day def dara yàlla mooy koo xam ne euh, fa'alun lima yurid mooy ki nga xam ne mooy def ci euh, ni mu ko bëggee ak na mu ko soobe noonu lay defee lu mu bëgg fa'alun lima yurid mooy def lu mu bëgg ak na mu ko bëggee kon kenn du ko forcer ci dara moom borom bi subhanahu wa kon dafa jomb ci jëmmam ji itam ñu koy forcer ci euh, def dara sama mu nekki noonu dafa jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa la jëxlun ak réer moom suñu borom bi subhanahu wa taala itam réer dafa jomb ci moom ndax euh, war naa xam lépp loo xam ne mooy xew kon bu fekkoon ne dafa am lu mu réere bu boobaa loolu ak manqué lay tegtale te loolu day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa la wa mawtun akuk faatu euh, suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne ak dundam amul fu mu yem ni nga xam ne noonu la euh, ak euh, noonu amul fu mu tàmbale itam ak dundam itam amul fu mu yem du jeex mukk moom suñu borom subhanahu wa taala kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kon lépp dana jeex ba des ko moom suñu borom subhanahu wa taala kon loolu day tegtale ne moom faatu dafa jomb ci jëmmam moom suñu borom subhanahu wa taala wa aman niki noonu itam gumba dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala bokk na ci melokaan yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa jomb ci moom mu melowoo ko summa bakam bakam topp itam lu muy ñàkk a mën a wax loolu itam dafa jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa kon jikko yooyu yëpp nga xam ne moom la ñu tudd ay melokaan la yoo xam ne euh, dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa ndax bu fekkee ne dafa gaar jëmmi suñu borom subhanahu wa taala la muy tegtale mooy ak matadi ci suñu borom te suñu borom ku mat sëkk la koo xam ne euh, euh, kattanam ak nammeelam ak xam-xamam lépp loo xam ne moom lay def ci la koy teg amut lenn loo xam ne moom lay soxlawoo ci benn euh, mbindeef kon ñoo ngi tuub bu baax tey jéggulu di taxawlu foofu di wax ne in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh